waaw nouvelle bi euh, ñu ko yëgee xam nga man dama xëy tey si suba si demoon euh, jàmmalaay Cambérène xam nga tey la appel Seydina Limamou donc ma xëyoon dem Cambérène bi ma nekkee ci biir xabru Seydina Issa di ñaan

yow ay seen mag dara foog nga foog nga dëgër foog nga dëgër. masa masa masa masa bul def nii bul def nii grand ren bi nga ne fi am na famille bu ko taxaw ay bokk ma ngi ñuy topp kenn desul nit ndeyam nit bàyyi ay doom sant yàlla sant yàlla grand sant yàlla sant yàlla sant yàlla. sant yàlla sant yàlla sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla rek

La preuve, tout le monde l'appelle Papa Tchon. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc toutes nos condoléances à sa famille, à toute la musique sénégalaise, à la culture sénégalaise, au ministre de la Culture, au président de la Revue qui est gardien des, arts, de la culture. Donc c'est une lourde perte. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez Quand le bon Dieu a besoin de quelqu'un, on ne peut que se plier et souhaiter que le paradis soit, son, sa demeure éternelle. suis parce que Je suis parce que nous les années 76. boobu ñun ñëpp daanaka ay ndaw la ñu ay tout tànk la ñu mu yore woon ensemble boobu yoreegul euh, orchestre moderne ñu xamante depuis lors ba suñu jonni tey suñu ay ay doomam nekk sama ay doom ay doomam di ànd ak sama ay doom